waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu El Hadj Pape Cheikh Diallo di nuyu Sénégal yëpp di nuyu àdduna yëpp di nuyu waa Saloum. di leen siyaar bu baax di nuyu nag El Hadj Youssou Ndour maa ngi leen di siyaar bu baax Pape. kontaan nañu tey ndax euh, euh, ni nga euh, mel ci réew mi waaye bi ngay tàmbali di nekk artist genre musical bu ne amoon na fi da nga ñëw fekk fii ñii di woy lii. ñee di woy lële na ca des di woy laa mhm. waaye yow nga ni ngoyaan rek ci nga juddu mhm. ci nga màgg moom nga xam waaye mënoon nga def fi leneen lu dul ngoyaan mais boobu ba tey nga téye flambeau bi ne ngoyaan rek da nga koy jaay da ngay yóbbu drapeau ngoyaan bi fépp ci àddina lan moo tax waa sant xam nga rek li nga doon rek da nga koy téye mhm. parce que macha allah fa tabarakallah maa ngi gërëm nag àdduna gërëm sama alaaji di gërëm sama sama ñaari waajur ñi nga xam ne nag ñoom ma may muy alaaji baabu ak Seyna bu Mbuub sama yaay artiste la pap Seyna bu Mbuub artiste la ñun ngoyaan la ñu xam lii la ñu doon lii lañ fi fekk kon dañu yaatal rek macha di maanaam da nga da nga fekk ñuy ngoyaan fekk ñu ngoyaan ci nga màgg ci laa màgg ci laa yaru da ko daan foowee wala da nga daan ànd ak sa yaay di ko aw sama yaay dama doon dama sama yaay bu amaan programme bu amee programme maa koy aw di ko tëggal ah. Seynabou Mbuub nga gànn mi ci paat ak Seydou Jengaan nga tax rajo ko dag Jengaan sama yaay jooju. di ko tëggal lekkat di ko tëggal paan. waaw. ban dëkk. Kacot fan ci Saloum Kacot. Kacot ci ginnaaw Kaffrine Kacot moom fan la nekk ah ginnaaw Kaffrine. ginnaaw Kaffrine. Ah. alaaji bu jëlee ma fa nag indi ma sagre sago. ah kon moom jëli moo la jëlee Kacot indi la Dakar. waaw waaw. mais terewul bi mu la indee Dakar balaa sax ngay génne clip balaa sax ngay génne bande. Sénégal yëpp xam la. waaw loolu est-ce que yaa ko doon xaar est-ce que bi ngay ñëw Dakar di jóge kàccoot alaaji bi di la fi indi xalaatoon nga ñi di nga dem ba àdduna bi xam la yow Khady Mboup est-ce que loolu njortoon ko waa xam nga dañ naan ku yàgg ci teen rek ba fekk la ci. Mhm. te kuy ñaan dangay ngay ñaan yokk rek mhm. mais kenn xamul li yàlla ñëwee lépp mbiram yàlla la rek mhm. ñu jox ko yàlla rek parce que dañuy sant nag mhm. àdduna ñëpp a ñu bëgg ñu sant yàlla rek mais lu jiite àdduna bi di la bëgg man bëgg naa comprendre est-ce que euh, xalaatoon nga ni di nga dem ba àddina yëpp xam la ci li ngay def waaw man xalaatoon naa ko ndax mën naa li may def macha allah macha allah fa tabarakallah xam naa li may def neex na nit ñi man xalaatoon naa àddina te day gën a yokk sax pap mhm. ca kanam la jëm mais est-ce na pour yow ñëw dakaar wala euh, bi nga yegsee nga fekk fii ay artistes. Euh, mais commencé di jouer ci euh, club yi di def sa ay soirée muy neex man je me di bi ñu lay doog a découvrir foo tourné am na waykatu ngoyaan bu mën mu ngi tëgg bërëb sàngam xadi <laughs> mbuub la tudd ba euh, sàngara bi ñëw ak ni nga ko woyee woon boobu itam cartonné mm. ba adduna bi yëpp découvrir la man xaw ma nan nga def daal ba loolu yëpp am waaw xam nga rek Euh, bëgg nit ñi doom aadama njaay yi après di servir lu neex tamit samay samay fan si yëpp ma bëgg ma bëgg leen ba pare di gërëm sama waajur yi di gërëm sama alaaji bi di gërëm nag yéen ñi nga xam ne yéen a ma jàppale sàngara bi mu génne yaa ko njëkk a jël ah wax dëgg yàlla nga joxe ko nit ñi def ci sa devoir wax dëgg yàlla Pape ma di la gërëm alaaji Pape Cheikh Diallo di gërëm ñëpp nag mm-hmm. xadim boobu nag ah dafa osé mm-hmm. donc osé moo tax ma osé ba pare man li may def moo tax ma osé na teg ko ci boîte teg ko fu ne nag uh-huh. ba léegi dugal ko nag biir Europe waaw ñëpp bëgg ngoyaan uh-huh. léegi ngoyaan dafa carton ñëpp ko bëgg uh-huh. waaw mais ngoyaan bi euh, euh, naka la ko nit ñi di dunde boo dee woy ci club yi par exemple dinga ci fekk ay intellectuel di nga ci fekk ay waa Ndakaaru waaye terewul foo xalamee dëppal leen leket dëppal leen paan ñoom dañu koy fecc euh, maanaam euh, lu euh, nit ñi xalaatul woon ni dinañu dem tey ba ñëpp di fecc ngoyaan waa ngoyaan bi léegi xam nga dañ cee boole nag ay clavier dafa moderne léegi dañ ko moderne di boole ci lépp. d'accord léegi Pape Cheikh bu toogee da koy déglu Saalum bi dañ koy déglu ku ne da koy déglu ñu jox la li nga moom rek. Mhm. waaw parce que lu la laa leen di woyal mhm. ñi fecc kontaan béggee kilifa yi mën nañ ko déglu mais lan lan mooy histoire ngoyaan ak ngoyaan fan la jóge ba ñu tuddee ko ngoyaan parce que am nañu ay mbalax am nañu je sais pas acoustique am na ñu yeneen genre musique yu nekk fii Sénégal mais ngoyaan bi ku ko wéy rek ngoyaan la mu nga jógee ko ca Medina sabax man sama goro fa la dëkk ah. maram jaara jeg mi nga xam ne moo jur jëli sàmm ko woy air bi ñun ñëpp ko bokk air ngoyaan bi waaw mais lu lay def ànd sa di nekk sa groupe sa jëkkër di la xalamal ngay woy xanaa neex rek mhm. jëli bi nga xam ne daf la takk mhm. ci farata si yàlla ak sunu sama amet andi la fii ndakaaru bàyyi la nag wax dëgg yàlla nag ba ñëpp xam la mhm. mu di la xalamal te mosul mosul lay indil benn problème di ko gërëm rek ci way wi ngeen xamante wala waaw <laughs> bi may takk si nag booba mu ngi xalam. ah boobu mu ngi xalam mais yow woyaguloo. mais boobu maa ngi woy yaa ngi jàng woy ak sa yaay. bi may nekkee woy. may woy dafa yàgg. kon da ko doon carrément. woy dama ko doon. Ah. sama yaay dama tëdd ba guddi mu yee ma na ma jógal woy. Uh-huh. na ma def nii la du nii. Uh-huh. waaw moo tax woy lu ma ci yëkkati rek xam naa ko. Uh-huh. waaw. te da daan def ay tournée lan moo utalee woyu dëkk ba. ak ñëw ba ndakaar di way àddina xam la am na am na ay uute. benn la parce que fii moom xam nga rek ay dañ lay jàppale teg la ci kii kot wax dëgg yàlla. Mm-hmm. naan la nii la ak ne mais woyu Saalum ak woyu Ndakaaru artistes yëpp daal benn lañ ak woyu eeri benn lañ. Mm-hmm. waaw mais foofu da ngeen di dem ay xew di dem ay programme di def seen ay tournée. fee dañuy def ay tournée di dem ci xew yi ci di ngénte yi. Mhm. comme fii tamit dañuy tëgg xew yi. Mhm. dañuy dem ci milieu yi di tëgg. Mhm. dañuy voyage di tëgg dañuy ooy ay programme yi def tournée Europe def tournée Saloum. tournée Saloum ak tournée ak tournée biir euh, biir biir Dakar. ci région bi oui. ci région yi tam da ngeen da ngeen fay dem. waaw foo dem rek xadim bu am la fay soppe uh-huh. waaw. kan moo leen di fental ndax woy yi euh, boo dégloo eeru ngoyaan da ngay xam ne lii ngoyaan la mm-hmm. waaye toujours day am différence woy yi dina am uute donte benn gaam la rek gaamu ngoyaan mm-hmm. euh, naka ngeen di naka ngay liggéey par exemple yow sa ay air wax dañuy toog ma ak sama groupe ñi xelaat mhm. sama jëkkër xelaat jox ma mhm. man ma xelaat yokk ci rek mhm. bu ma xelaatee na sama groupe bu ñu toogee bu ñu woyee rek dañuy xam ne lii tegu na ah. woy ngoyaan ak yeneen genre façon woy bu ci gën a bu a lan mooy uute bi foo ma jox ma woy ah. artiste bu ñëw rek mën naa woy moom parce que eeru ngoyaan moom benn la eeru ngoyaan benn la ak beneen ak façon bi ngeen di woyee ni ngeen di def seen baat waaw waaye foo ma dugal rek pam mën naa fa woy mhm. mën naa fa woy ndax artiste bi waaw parce que boo lii nga bëgg tamit wax dëgg yàlla da nga ciy jéem lu sori daal mhm. parce que aar noonu la mhm. toujours ngay jàng comme añ rek comme li ngay togg aar toujours ngay jàng du da ngaa man complet toujours rek ngay jàng aar. te boobu ba tey yaa ngi jàng. ba léegi maa ngi jàng ba léegi maa ngi jàng te mokkalagu ma. jeex na léegi dama lay bàyyi nga am loo ñu bégalee laataa ñuy waxtaanee guddi gi. le 21 mai waaw di gërëm nag Adjaratou Toutane Diack. waaw le 21 mai la ñu koy amal ca théâtre national Daniel Sorano euh, ànd nga ak euh, tuuti ci euh, groupe bi ñu bàyyi la nga am loo ñu mat daal rek bégal ñu. en attendant ñuy waxtaanee événement wu 21 mai bi incha allah ci théâtre Sorano waaw tey xalam la ñu àndal rek uh-huh. ak waale Ndeye Awa Ndiaye def li yem rek waaw diyata manki yara diyatay diyatay diyata diyata ma diyatay kadar ngay bajan bali kadar ngay kadar ngay soxna bali kadar ngay binta sëriñ Muntaxa ne jàmbaar lay yooy ba jal baale nobol ngay non nan la fonk nga sa daare maam jàmbaar ngaaya wey naa lay sama waaje kañ naa lay

diyata ma ka yara diyata ye diyata ma ka yara diyata ye ma ka yara jamano diyata ye bila yayi far seex na wayna lay yayi ma mi na na la wayna lay jigéen da job lay way way na ka nga séddu Fatou Fall yaayu Mbaye ak Ali ajaratu gay wilaan lii ma sol ba ci kaw ba ci su moo ko def ngoog Khady Mboup saa yu euh, ngoyaane ñëpp kontaan lii nag bokk na euh, ci ay euh, prestation yoo xam ne ni mu ngi koy amal ci ay club di def ay soirée yu neex yoo xamante ni ku ca dem kontaan et pourtant bi nga xamee ni ñu ngi koy découvrir di ko xam boobu fekk na clip génnul cassette génnul waaye fexe na ba bi ñu ko découvrir fii ci Sénégal ba tey muy maintenir la cap di ñu bégal waxuma euh, saalum saalum yi kese waaye képp koo xam ne rek da nga am dégg euh, yor ay nopp garmi da ngay bëgg a déglu xalam euh, leket bool loolu nag dafa bokk ci aada ak cosaan bu senegal yàlla boole la ak ay nit yu baax maa ngi dégg sa diggante ak ajortu gay wilaan mu aali nguy ñu ngi koy ndokkeel bu baax yaayu maas mbayang ak jabootam yépp sa diggante ak ku mel ni Mbagnick Diop suus kenn dootu ko werante maanaam bi ngay ñëwee dakaar ba tey daal ñu ngi euh, lay jàppale bu baax ci sa ci sa liggéey loolu itam bëggoon naa nga wax ma ci tuuti sa digganteeg say géer ndax nag artiste bi woykat bi ngoyaankat bi ay nitam rek la am pour ñu jàppale ko te bu dul woon ak ñoom du neex waaw bu taxuloon na ñoom làmbaay ñaaw mhm. <laughs> ndax armée public bi mooy dooleem mhm. waykat bi rek ñi koy jàppale mhm. di gërëm nag ci ñu ma dooree muy a Gajaga a Gajaga monsieur le maire Malika macha allah Malika nga dëkk Malika laa nekkoon ah fa nga nekkoon d'accord d'accord d'accord jàppale ma lool monsieur le maire kuy fàtte dem bu baaxoo dëgg la waaye ñu ñëw fii nag wax dëgg yàlla. Mhm. ñoom tam si soxna. wallaahi tam si soxna ñoom Kayra Ndiaye. Kayra Ndiaye. parce que bu dee tëgg ñoom ñoo fay jiitu. ñoom As Ndaw sama papa. As Ndaw Ndukumaan Bëlam Ndukumaan. Mhm. sànde na aram faxam mi ci dem gi bàyyi roxee daw ak bàyyi Mansoor. Alioune Badara Bey. Alioune Badara Bey sama papa. papa yi tonton papa yi tonton mag. <laughs> ak Pape Samba Thiam. <laughs> ñoom Maodo Sarr. Maodo Sarr. bilaay alaaji <laughs> Maodo Sarr di gërëm ñoom Ablaye Seydi Sow mhm. Ablaye Wilane sama géer gi wallaahi Ablaye Seydi Sow nag macha allah mhm. moom it ñu ngi bokk ci guddi geeg Baye Ciss mhm. Baye Ciss Baye Ciss waaw di sama xarit bi Fatou gi ajaratu Fatou Guèye. Fatou Guèye moom daf la bëgg moom. waa sama xarit. moom daf ma sonal waaw. yaay maa ko jàll da nga mënul invité Xadim Mboob nga <laughs> dangaa mënul teg kilimu xadim buub bi xanaa xamuloo ne xadim buub li muy ngoyaan amul fenn <laughs> ma ne ko bilaay yaa ñàkk ñaan ci woykat moom sa diggante ak moom euh, diggante euh, bu bu bu doy waar la ci diggante ñaari artiste pa dama bëgg ajrat Fatou Guewel mhm. ndax dama ko bëgg ci façon yu jikkoom rafet mhm. dafa jullite ak laa bëgg dafa gëm yàlla waaw dafa jullite moom te lu mu am bokk ko moom daa mel ni ku ñu seexal barke rasul yàlla ko ma bëgg ñoom ma jigéen joxaane ay géram dañ may teral ndax ajot Fatick yooyu ndax cofeel bi nga am ci moom ndax mhm. mhm. ba dégg maam ko jëy mhm. di gërëm sama njaboot googu wallaay pap ñëpp yaa baax nag te mën a way ñëpp ma dooleel bëgg ma wallaay tey ñoom roxee ndaw a ngi seetaan balam du kumaan boobu mooy yóbbu woon Italie uh-huh. barki démb uh-huh. borom Brescia leeno ñu ngi seetaan uh-huh. ñoom mën a sangi France macha allah fa tabarakallah guddi gi dina riis tey boo demee balaa ñuy wax ci guddi gi boo demee bay tukki ak sa leket di tukki ak sa xalam di tukki ak sa ay paan lu mu lay def ngay dem ci ci ci àdduna bi ñëpp di la gis fierté la pour yow. waa loolu fierté parce que loolu lañ doon ñaan. bëccëgu mbagg boo ubbi rek. ndax Saalum ba itali loolu defe naa sakk la boo ubbi rek boo bee xol ba maa nga seen nga ciy fekk dëgg la. macha allah fa tabarakallah lan lañ doon ñaan. Mhm. ñëw ndakaaru njaay ba yàlla yokk ñu ñuy génn. Mhm. di dem ci jëf wala bëgg. nekk ci nekk ci vraiment ambassadeur. vraiment nekk reine di ngoyaan. waaw loolu. jàmbaar ji nekk tefe moom ak oxoon du tas takk muy muy muy muy Youssou Ndour Youssou maa jigéen sira kumbala moom moo xoon loolu mm-hmm. ma ne ko yaay jógaleel gëleey Youssou ay laay doomu ndoo yaay ya wàcc naay sira kumbalaw bek buba kumbalaw nuy naa la nu ñu nuyoo buur ku nekk juddoo ma ko doy yàq bu rega wa toju ko mm. jigéen ji jaamu yaa ji baax a noppalee waaye Ndour yow dañ la woon jéeje mel ni yow koo koy bàyyi Birane Ndour borom te borom si rek soo gi àll Ndiaye. leket yomb naa tëgg. parce que man dama gis yéen ñii ngoyaan yëpp da ngeen di dëpp leket leket bi du toj. ak tëgg yi ngeen di tëgg yëpp. leket a ngi nii boo ci defee sow mu dem mu tëgg mu neex. mais est-ce que yomb na yomb na jëfandikoo leket. waaw yomb naa tëgg loolu yëpp da koy jàng rek. donc booy tukki sa leket rek nga yóbbaale. finalement orchestre ngoyaan méttiwul. mais c'est vrai que léegi ngeen ko moderniser dugal ci ay piano yooyu noonu yëfi moderne mais euh, euh, groupe bu groupe bu ngoyaan euh, mboot bi defe naa mooy xalam rek ak leket. peut-être ak paan. waaw groupe ngoyaan moom xalam la ak leket. Mhm. waaw mhm. mais léegi dugal nañ clavier. dugal nañu ay batterie. mu gën a moderne. ah groupe xaddi boobu na léegi orchestre laa yor. carrément macha allah. Uh-huh. di gërëm Moustapha mbay sama doom ja nekk ah, Angleterre. Uh-huh. chéri Fatou Mané. Uh-huh. moo ma yónnee batterie yeeg. clavier yeeg. scénario musique yeeg lépp. na ma yaay sama yaay. lu mu gis ni baax na pour ce groupe rek mu yónnee la ko gis na baax na rek. très bien mu dugal ko ñu chéri Fatou Mané parce que. ajaratu yaata fay mi ko jur. aram ko jur aram sekk ak sama papa bokk ndey ak baay. ñu euh, jëm nag ci guddi gu mag nga tànn sa date yow nii le 21 mai nga koy amal ca théâtre national Daniel Sorano du nekk gulet waaye euh, bu ren bi euh, le vingt 21 mai maanaam bu ñu wooree wooree ba woori incha allah le 21 mai ca Sorano lu tax nga tànn 21 mai pour woo Sénégal yëpp ñu ñëw àndandoo ak yow célébrer Ngoyane. lu tax loolu parce que euh, samay xarit yi nekk réew ma tamit mhm. dañoo bëgg a fekkee guddi gi mhm. te le 21 mai da leen di arrangé mhm. waaw 21 mai dafa baax ba pare euh, tonton ba maa ngi koy gërëm di ko sant Mbagnick Diop di gërëm promo consulting directeur Koudou waaw ah, waa Koudou aussi kii euh, Maguette Sène Maguette Sène nit ku baax waa di gërëm ñoom lii ka baax ñoom jotar joor Diagne sama yaay ajaratu Ami mbay Ami Mbaye waa di gërëm tamit mais notaire bi. Mm-hmm. kooku ñoom mu tey maamam. Mm-hmm. waaw maître Nafissatou Diop maître Nafissatou Diop notaire. Mm-hmm. Saalum la dëkk moom Saalum la dëkk. macha allah bii bi ñu jàppee guddi gi. kundun euh, def ci def lu rafet. moo sama càmme ji ñu wax. moo dëkk Sokone. ñoom ay nitu culture lañu. Latif Coulibaly dañu bëgg aada ak cosaan. Latif Coulibaly ma jël. dañu bëgg aada ak cosaan Saalum Saalum la. Saalum Saalum la. intellectuel de haut niveau mais Saalum Saalum quand même. borom Sokone ñoom Serigne boobu. Uh-huh. macha allah. Uh-huh. guddi gi daal ñëpp ci jàpp. Uh-huh, ñëpp a ci naka la guddi gi nar a demee wax ñu nu muy demee le 21 mai théâtre national Daniel Sorano ah euh, naka lay demee incha allah. pour sénégalais yi mën koo préparer guddi gi grand bu buy rek. Mhm. sagalu ba jekk. waaw xeeñ parfum yi neex. fecckat yi ku ne di nga am juróom-ñaari fer. waaw waaw lépp rek ci ngoyaan teg ngoyaan sow <laughs> mi teg ataaya bi lépp ci ngoyaan. am na kuy laajte léegi ah. Saalum Saalum yëpp nañ génn. Saalum Saalum yëpp génn mais lan moo tax koo ku ku ngoyaan kat woy mu bëgg sax. maye yéreem yi mu sol lan moo tax ngoyaan lu tax muy dugg ci yaram. ngoyaan day dugg même ku nekkul saalum saalum buñ la wooyalee woyu ngoyaan da koy yëg daal day dugg sa yaram lu tax loolu. waa ndax dafa amaale ay yëfi jinne ci biir ngoyaan way dafa xalam gi xalam gi mooy affaire yi jinne mhm. xalam paap buumi góor la xalam koo ko woy rek boo xalamee koo ko wéyee rek bu ñëw ndax xalam dafa ne paap eh? Euh, yeelaa duñ ko woy baadoola walaay duñ ko woy baadoola waaw yeelaa léegi nag damaa bëggoon nga xalamal ma ngoyaanal ma oustaz Pape Hann dama bëggoon nga woyal ma oustaz Pape Hann <laughs> oustaz Pape <laughs> moom daal laa bëggoon ci ci li nga ñuy li nga ñuy waaj a mosal léegi nga nga yóbbaale ko ci waaw mu barkeelu rek loolu mënul ñàkk yëfi àddina la te dañ ciy bégal euh, sunu euh, soppe yëpp donc Khady Mboup di leen jox rendez-vous le 21 mai incha allah ca théâtre national Daniel euh, euh, Sorano guddi gi nag euh, ñu ngi ciy woo ñëpp. ndax nag Sall Pape Kandji ñëpp ku ci ñëw rek di nga bëgg. wallaay ñu bàyyi la nga am loo ñu bëggalaatale laataa ñuy dem nag ci dernière partie waxtaan bi. maître Dior Diagne maître Lika Ba notaire bi sama yaay ajote am mbay. yalaay baay baabooy séeri mari daw bilaay way wi yaa ko moom bu na déggal Ablaay aja sama ngeen

aval bi nag ku ko bëgg a dund na nga wàcc le 21 mai incha allah bu ñu waree rek bu soobee yàlla ca théâtre national Daniel Sorano Khadim Mboup ak groupe am ñu ngi ci bëggal sunu xarit yëpp ak fu ngeen mënti nekk maam xujja moom nee na de teel a jënd billet maam xujja bu faatu géwél maam xujja As Ndiaye nee na kontaan na Euh, Fat Fall Balago ci dëkk bu ñu naan France moom nee na kontaan na ci ngoyaan bi euh, njaga Seck mu Ousmane Sonko ca Amérique moom itam nee na bég na ak euh, suñu yeneen soppe yoo xamante ni ñu ngi kontaan ci li nga xam ne ni mosal nga ñu ko ci bëccëg bi waaye lii mosal la rek en attendant le mais mai incha allah ca théâtre national Daniel Sorano ñoom Alimaane kilifa Saalum Saalum yu baax yi kenn kenn ku ne daal Euh, defe naa mu lay jàppale en attendant le 21. bilaay xam ne xadim boobu nag waaw sama mhm. voix laa am. Mhm. ak sama groupe. mais li ci des yàlla mooy eggil ak jaami yàlla yi. Mhm. ñi nga xam ne dañ maa bëgg nag macha allah di ci gërëm bu baax nag ajarat Fatou Aliou maa daaw. bi may def sama guddi gi. lu na la ci def. Ali nit ku baax la. waaw Ali nit baax la. la ci def Saalum la dëkk nag. Alaaji Maodo Sarr sama papa ji ndey ko du ndaw. Mhm. bëlëm di commencé mi joojo ko ma ndaw. Mhm. sama baay jooju nga xam ne bàyyiwu ma. Mhm. bàyyi Marème Waga ca Espagne. macha allah. bu ñu defee guddi gi sax ñu ngi waaj tournée européen nag. ah incha allah waaw waaw ak Amadou Ndiaye après guddi gi di ngeen Aïssa Ndiaye. di ngeen di ngeen wër di ngeen wër àddina. wallaay pour wane wane liggéey bi. dinañ wane liggéey bi. fii ci Sénégal. dinañ ko wane fee ca diaspora bi tamit. parce que Amadou Ndiaye suñu mélangeur boobu tamit baax lool. nekk France. kon Sadio Ndiaye. awa seen yaay mais bokkar la ñu wooyee baayam. mu yore fii ay société baax lool nag man. kooku ma tax Pape. ku ma tudd nag ma baal. parce que sëriñ Babacar ñëpp nekk sama xel. Mhm. mais ku ma tudd rek nag ma baal. Mhm. munoo tudd ñëpp di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp. Mhm. sama yaay Nafi Ndiogo. Seyna Mbalem. mu baax mi. wallaahi sama sama rakk jooju gën ci man. macha allah ñoom buri jong waa Mbour. fan su kole bu xadibu bi. ñëpp maa ngi di gërëm di la sant. wax dëgg yàlla parce que. ñëpp ma bëgg daal d'accord gàtt mi ñëpp laa bëgg a tudd. ban message ngay wax sa fans yi ak euh, sénégalais yi nga xamante ni ñoo bëgg ngoyaan euh, surtout bëgg li ngay def yow Khady Mboup la reine du ngoyaan. waa xanaa ne leen ñu jàpp ci guddi gi rek. Mhm. nu jëmmalee guddi gi rek ma kontaan. Mhm. nu ñu jëmmalee guddi gi rek kontaan. Mhm. bii yaa ngi foofu noonu. Euh, fee ca kër Mbagnick Diop. suus ak Sarano promo consulting am na ay billets. Buntu Sorano tamit am na ay billets mais est-ce que am na numéro téléphone boo xamante ni ku ci ku la soxla pour programme bu la woowee jot la. ku bëgg ci billet yi itam pour fekkee euh, guddi gi euh, bu ci wootee itam mën na am billet parce que am na ay point de vente buntu Sorano promo consulting. tam ku fa dem am billet mais est-ce que am na numéro. xam ne envoyé léegi numéro yi. waaw ndax. Euh, waaw sama doom jooju nga xam ne nag. Mhm. jàppale ma ci guddi gi. Mhm. ak ak ay àndandooram. Mhm. vraiment. Euh, moom mi maa ngi koy gërëm moom mi sekk moom mi sekk laay mhm. ku ci jàpp la moom tamit mhm. bëgg ma lool mhm. yónnee ma ay sañ sañsa ñoom Prestes Ndiaye moom daal ku lim juum ku lim juum vraiment ñëpp a ngi préparé pour guddi gi incha allah Pape dama kontaan mais ajalatu tuutaan maa ngi koy gërëm lool di ko sant ndax lii tey am na ci bay na ci waaram lool. dafa gàtt sax mais xam naa Cheikh avant le 21. ñoom ñu ngi dinañ invité wëndeelu. waaw ñu jàkkaarloo su boobaa nag dinañu gën a développé. Euh, comme euh, émission bi moom euh, ñëw cof rek la joxe information annoncé li nga nar waaye dinañu defaat leneen laata le 21 bu soobee yàlla bu ñu waree dama lay bàyyi nga tàggatoo ak sénégalais yi ñuy seetaan et puis jox leen rendez-vous le 21 bu soobee yàlla. waaw Pape maa ngi lay gërëm di sant. Mhm. di gërëm Youssouma Jigéen Ndour. ndax lépp moom la lépp la. ndax lii mu def nii tey Sénégal yëpp gis seen bopp. Mhm. ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. Mm-hmm. di ñaanal équipe bi ngay àndal waa saal bi nekk fii ñëpp maa ngi di gërëm di leen mm-hmm. sant. Mm-hmm. macha allah di gërëm àdduna di gërëm sama groupe di gërëm sama alaaji bu ñaawul bi njarka ba ci ñaani seen sam maam góor séeri xadim boobu mbaajo mbay bàyyi Seydina dafa neex de ànd ak sa jëkkër mu lay xam a ngi couplé tout le temps rek waa ñun kenn demul bàyyi sa bokk añ bokk reer bokk xalam bàyyi la yow tëggi woo programme bàyyi ko ku ko séen séen la ci ginnaaw nga koy surveiller di ko xalamal waaye jaliwaay <laughs> waaye dafa dëgg la de doon te Pape Bouba Ndour nag Bouba bëgg Bouba dafa baax sama xarit la saay saay la rek waaye bàyyi na bu daf maa bëgg wuyu la rek waaye bàyyi firi moom sama xarit la directeur programme ñoom Moussa Souma ñoom ñu maa ngi leen di gërëm uh-huh. ku daal juum ah, di gërëm Sénégal di wax ne guddi gaangoog la 21 amee ne ci ñëpp jàpp di gërëm ñoom Ami Niang Ami Ñang li kay sama yëf borom Washington Pape dama jël guddi gi nag <laughs> damaa bëgg nga jàpp téye ko nii wallaay sama yëf la ak Soda Bousso sama xarit yooyu Alsane Mbaye barki dem lu ma may bi ma Soda Bousso mu ngi France actuellement Alsane Mbaye jébbali VIP Alsane dafa baax barki dem la ma maana mbay may maana mbaay may bi mag maa ne jabaram yàlla bàyyi ko soxna si. amiin amiin ak ñi muy àndal yëpp. allahumma di gërëm ñoom maam Khoudia sama taaw bi. maam Khoudia Thioune. Ajaratu Fatou Guewel. Ah. maa ngi koy gërëm di ko sant. borom fondation bi. borom fondation bi. nga xam na nag day tëral ñëpp. wallaahi wallaahi borom borom solidarité. wallaahi. soli noo rey ni solidarité xam nga ni boo déggee mooy président fondation ni mu ko waxee noonu la koy doxalee. Uh-huh. barke Serigne Babacar ñëpp lay teral. yal na ko yàlla teral bu baax allahumma amiin xadi allahumma maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di woo Baye Ciss. Uh-huh. Baye Ciss. Uh, Baye Ciss. waaw ñoom Baye Ciss. koko kokoy borom Saala. wallaay sama impaañji. kokoy borom Saala ak sama yaay jëtu sama impaañji jëtu Saane. jëtu Saane. jàpp ci moo waral tey ma gis ak tonton Mbagnick. wallaay ba jàpp ci lii. wallaay yal na ko yàlla defal jàmm. jëtu dafa baax. lu ma sol rek. Uh-huh. Khalifa Bergan li faa ko tiir. Khalifa Bergan sama càmmeñ ji sama rakk la xam nga foog ñu toog wëndeel moo na wéyal gaañ. moom kay day wëndeelu bi mënul ñàkk ndax euh, li des ci programme bi xam naa dañ leen koy bàyyeek euh, équipe yi ci ginnaaw ñu ngi préparé match bi euh, diggante Sénégal ak Égypte ce sera pour tout à l'heure numéro téléphone bi nga xam ne ni bu dee bëgg ngeen jokkoo ak Khady Mboup ci programme ànd ak moom itam ci guddi gi defe naa 78 la 014 08 79 78 014 08 79 Khady euh, kontaan nañu euh, profito ci rek euh, nuyu mama Aminata mbay mooy yaayu njóogu Afia moom tey la anniversaire am. ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wérgu yaram. c'est de la part de El Hadj Mao Cissé. ak jabootam yëpp. am na ay programme yoo xamante ni itam bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel ñu baaxe leen ko laata ñuy tàggatoo ak yéen. di euh, euh, programme bu am solo bi académie xamle Serigne Mbacké Madina ñooy amal euh, journée bu mag incha allah vendredi 1er avril bi ca institut islamique bu Dakar ab dajale boo xamante ni ñu ngi ci fas ne xamle jaar-jaaruk Serigne Mbacké Madina dina tàmbali 15 heures am récital du Coran ba guddi gi itam. ñu euh, fas yéene cee waxtaan euh, waxtaan yu am solo euh, jagleel ko ki nga xamante ni moo di Serigne Mbacké Madina am na itam màggal gu am solo gu ñuy amal jeudi 31 mars 2022 di màggalu Daaru Karim màggalu Daaru Karim nag xam naa ni El Hadj Vieux Diouf ak Pape Samba Thiam ñoo ngi koy waaj ndax seen événement la te buñ dee dem Daaru Karim it ñoom la àndal ndax dañu fas yéene màggal juddug gane si àddina bu Cheikh Massamba Mbacké moom euh, di frère cadet bu Cheikhul Khadim euh, di euh, programme bu am solo boo xamante ni ñu ngi koy amal jeudi bii 31 mars di màggalu Daaru Karim ñu ngi ci woo mbokku taalibe yëpp Khady Mboup kontaan nañu ñu gërëm la gërëm ñi nga àndal euh, gërëm itam euh, Jali donc rendez-vous bi ak yow incha allah le 21 mai ca théâtre national Daniel ah, Sorano incha allah kontaan nañu bu neexee jërëjëf Pape kontaan na mhm. Pape nag ma woo jàpp ci guddi gi. jeex na guddi gi sama guddi rek naa ci jàpp. guddi gi def ko sa guddi di gërëm. <laughs> dama bëgg nag ki Fat Fat ki Dieng. Mm, Fat Kiné Dieng. ah dama ngi ciy jàpp. non dama ko bëgg man sama xol. waaw waaw seen journal Fat Kiné Dieng. ah Fat Kiné dem ana Fat Kiné. Fat Kiné mooy ki nekk Touba journaliste dama ko bëgg. ah Fati Dieng Fati Dieng dafa lapsus waaw Fat Kiné la booleeg. Fati Fati Dieng Fati Dieng kee dem. waaw kee Dieng waaw Fat Kiné dem. Fati Dieng moom Dieng di gërëm na Dieng ba Seydou Ba tamit wax dëgg yàlla Dieng ba Seydou Ba ak ñoom Mado sama xarit lañu pël Fouta ba capable di gërëm nag capable ñëpp ah, xale bu baax waaw ah, xale bu baax la na ko yàlla fal cat madame Seck waaw Ibadou Rahman bi waaw Ibadou Rahman macha allah di gërëm Mounas bu doy waar la sax mu nga France sama doom jooju baax lool Mounas ah waaw Mounas <laughs> Mounas Thior allez ak ñoom papaam merci maa ngi euh, gërëm ñëpp Euh, di euh, euh, sant ñëpp bu leen fàtte nag sama programme mu yaaya muy bis bi ñu jagleel Serigne Mbacke Madina xam nga Serigne Mbacke Madina moom dañu ko fayee suma baay Serigne Mbacke Ndiaye baayu taalili ak beexat yi donc programme bi incha allah vendredi bi la ñu koy amal 1er avril xam naa ni lépp lu ca xew rek naa ko yaatal ci fan yi ci télévision Futur Média merci à toute l'équipe de production dirigée par Pape Samba Thiam. Corombaar euh, Ndiaye rédactrice euh, bu euh, jotaay bi ñu ngi koy gërëm Abdourahmane Euh, en tout cas kulim Dioum euh, ci kanam ñu àndandoo dundu match bi Sénégal Égypte bonne chance à notre équipe nationale et puis voilà yàlla na ñu am ndam Khady bu ko defee nga goyaanal nga goyaanal équipe nationale bi yàlla na ñu am ndam 3-0 laa bëgg ah 3-0 nga bëgg ah amin yàlla nañu ko am suñu borom def allahumma amin allahumma amin Aliou Cissé rek maa limiti ñaane waaw sama Fatma Diaye ba Cissé moom day dégg ngoyaan ah moom Aliou Cissé Sadio ah. Mané sax day dégg ngoyaan ah Sadio Mané day dégg ngoyaan ñëppay dégg ngoyaan ndaw <laughs> yaay na xama ndaw borom États-Unis nday faat maa ngi koy ak ak Daba Gissé Daba Gissé Daba Gissé bu New York sama xarit Daba Gissé bu bu consul dem ni wallaahi kon alaaji ndangaan ndaw wallaahi alaaji ndaw balam du commande si min joojo commande chéri chéri Kinuska Ndaw lay sama càmmeñ jooju Daba Gissé ak euh, euh, Penda Gissé na ma demal ca Papis Konaté nga dugal single ma nga album ma fay daba daba daba noble la daba gisee New York ñu ngi koy nuyu euh, Ami Dieng madame Diallo ca New York Ami Dieng sama moom mu ngi New York actuellement yaay Sofia ak Dadi Kor Amadou Diallo ca dëkk bu ñu naan Amérique ñoom ñëpp ñu ngi leen di euh, bégee 14h27 à tout à l'heure pour euh, match bi on ñu tëj ak Khady Mboup mu am lu mu ñu woyal lu sew rek ñu jeexal ayca jeex na Macky Sall ndokomaanoy bila séeri da bëgg sene yaa moom dafa neex ndokomaan dafa neex mooy Pape Cheikh laa ko laaj ne préféré vous a été offert par Megawin.